souvenir souvenir am mbégte di dalal Abdoulaye Thiam moom mooy njiitu association nationale bi ëmb way taskatu xibaar yiy yëngu ci wàllu tàggat yaram boobu boobule association ñu ngi ko créé en 1970 kii di Serigne Ali Cissé moom moo ko njëkk a jiite toftal ci Jean-Marc Diakité ginnaaw Jean-Marc Diakité du Koumé moo ko dal di wuutu ci ginnaaw gi nag Mamadou Bakary Traoré dal di koy wuutu naka noonee Mamadou Diouf. Euh, Mamadou Koumé dina dellu si waat ginnaaw euh, CAN ci ginnaaw gi nag mu def fa juróom-ñeenti at ci noonu la ko Abdoulaye Thiam di dal di remplacer euh, ci boppu présidence bi moom nag ñu ngi ko tabb en 2017 à l'unanimité ñu dal di koy defaat naka noonu en 2021 jamono ji nag dese na ko lu ëpp benn at mu dal di jeexal ñaareelu mandat ci boobu boobule présidence moom itam mooy président AIPS muy association internationale bu presse sportive section Afrique loolee nag ñu ngi ko amalee ginnaaw bi ñu amalee juróom ñaareelu congrès bi nga xam ne fii ci ndakaaru lañu ko doon defee ñu daal di koy tabb ci bopp boobule institution nga xam ne association pays membres yi ñoo ko fa teg boobu la décision nag ñu jël ko à l'unanimité ginnaaw bi nga xamante ne doomu réewu Maroc bi di Mourad Moutawakil moom moo daal di dindi lii di candidature am ci noonu mu dal di wuutu doomu réewu Nigéria bi di ubbi Mitchell ginnaaw juróom-ñeenti at yoo xam ne moom itam def na ko ci bopp AIPS jàpp leen ne Abdoulaye Thiam mi journaliste la moom mooy rédacteur en chef bu journal Sud Quotidien Abdoulaye Thiam ginnaaw bu ma la nuyoo ba dalal la ba noppi ana lan moo tax nga taamu nekk journaliste sportif. jërëjëf Awa euh, taamu journaliste sportif bi moom daanaka. mun naa wax entre guillemets sax dañ ma ko imposé parce que bi ma jogee université ñëw fële ca Sud Quotidien bi ma discuter waxtaan ak Abdoulaye Ndiaga Sylla te mu nekkoon directeur de publication moment boobu man euh, par rapport ak sama jaar-jaar ak fi ma jógee fi ma juddoo li ma doon intéressé rek mooy nekk journaliste politique moo tax nag ñu bëri sax dañuy jaawale yenn saa yi euh, parce que maa ngi jógee Fuuta et et euh, normal ma àndoon ak fugg de la jeunesse bi ñëwoon pour dénoncer suñu situation bi nekk Fuuta ak loolu euh, mais ci biir discussion bi aussi jot nañu waxtaan ci wàllum sport bu ñu waxtaanee ci wàllum sport nag peut-être si la gisee ay prérequis maa ngi fàttaliku ba léegi ay phrase bu ma doon wax mu ne ma yow il faut que ma protéger la moom Abdoulaye Ndiaga Sylla di suñu doyen ci laa duggee nag des sport bu sud fekk fa ñoom Mame Ali Konté fekk fa ñoom Mbaye Kassé ñoom Serigne Mour Diop boobu nag la commencé en 2001 jusqu'au moment où nous parlons et aw ma ci benn regret aussi parce que wax dëgg yàlla sport permettre na ma tey ma xam lu bëri ma dem fu bëri ma ay idées reçues yu ma amoon aussi lu bëri soppeeku ci sama doxalin si ni may gisee àdduna si ni may en tant que Haalpulaar déjà et tout donc euh, lu bëri daal permettre na ma grâce au sport aujourd'hui ba mun a am daal benn expérience boo xam ne dina ma dina yokk ci samay gis-gis ni ñuy gisee àdduna <laughs> bi moom euh, première photo bi nii maa ngi déjà fii defe naa bébé la parce que je peux pas me souvenir mais man ak sama yaay la Aminata Mamadi Ba donc moom moo moom moo moo téye nii maa ngi nekk xale donc euh, souvenir bu extraordinaire la parce que yàlla yaay la bu mu yaay yu bëri parce que dafa uufoon ñu bëree bëree bëree bëri euh, ba léegi sunu village ñëpp reconnaître qualité yi mu amoon ak euh, surtout génn sax da da da doon dem sax ba benn moment day génn néegam sax di ko bàyyi ay ay étranger ñëw di fanaan suñu kër uufoon ñu bëri aussi ñi jógee Mauritanie ñi jógee gan yu bëri doon ñëw suñ ñëwee suñu kër lañ doon dal te buñ ñëwee moom moo leen doon euh, te donc euh, su ma eggee fi ma egg fii tey aussi bu weesoo yàlla ak yenant bi defe naa moom la parce que moom moom inculqué beaucoup de valeur Euh, lu bëri ci conception de la vie depuis bi ma nekkee Fuuta ak euh, valeur yu bëri en tout cas comme à l'instar de beaucoup rek jom fulla fayda euh, noonu yëpp ci daanaka ci moom laa ko jëlee voilà. loolu hmm. waaw loolu aussi xam nga généralement booy jiitee il faut que nga yaatu. man euh, pourtant bu njëkk ba gars yi dañ doon wax ne il était impulsif imbu de sa personne wala yooyu noonu yëpp tous les qualités que l'on retrouve souvent dans notre ethnie entre guillemets que l'on dit mais à force de côtoyer les gens da ngay rendre compte aussi yenn saay baax na nga dawal diplomatie yenn saa yi même si sa biir kër euh, yenn saa yi ngay gis dara mel ni gisoo parce que su fekkente ne yow à chaque fois da nga bëgg lu doxul rek nga nekk di ko critiquer euh, te ñi la fa teg aussi ëppoo euh, kenn juddu ëppoo kenn jàng gënoo kenn ñi ñoo la tànn ci diggu nit ñi comme ni nga ko waxee léegi à deux reprises awma benn euh, opposant ñoo ma tànn ci nit ñi ma nee na ma naa la ñëw jiite leen booy jiite nag da nga yaatu yaatuwaay bii nag lay yenn saay di nit ñi di yaakaar ne euh, dama conciliant bu mu ëpp que je ne suis pas ferme sur certains trucs alors que nag bu jaree fermeté nag da ngay wane fermeté mais ouverture bi man loolu laa gën a bëgg aussi damay bëgg yenn saa yi di déglu ñëpp di bàyyi aussi nit ñi di ma critiquer parce que su fekkente ne da topp benn wuy wuy rek peut doo ci génn il faut aussi yenn saa nga nangu nit ñi di la critiquer bu ñu lay critiquer di nga xam peut-être et puis nag critique nag bu fekkente ne elle constructive lépp loo xam ne critique bu constructive la nga jàpp ko leneen loo xam ne nag da nga jàppe ne li kii peut-être que c'est ma tête qui lui plaît pas wala yooyu yooyu moom da koy faxas rek nga avancer bi bi université la euh, bi maa ngi nekk deuxième année droit euh, maa ngi nekkoon pavillon M donc euh, voilà à l'époque nag Médina ñun ñëpp foo lañ nekkoon avenue Malick Sy amoon nañ suñu benn nijaay bu nekkoon foofu tuddoon Oumar Samba Diop ndeysaan dem si yàlla ñun waa village yëpp bu ñëwoon foofu lañ doon foofu lañ doon dal donc à l'époque y PBS ak Daara ji rek ñoo xewoon y pas beaucoup de rappeurs donc là on mettait des pantalons jeans yu xaw a yaatu yére yu yaatu et tout ça takk ay chaînes tu vois donc euh, loolu moo nekkoon daal ci ci ci jamono bi wàcce ay tubay ak yooyu bon jaar-jaar la rek ku nekk euh, jaar na fa puis bon c'est en 1998 en 19 je crois j'étais avec euh, un collègue là euh, Mamadou qui est aujourd'hui devenu juge ñoo bokkoon benn néeg donc fii suñu néeg la woon donc au pavillon au pavillon M donc c'est des c'est encore de de de jeunesse d'étudiants c'était c'était extraordinaire quoi. voilà mouvement hip-hop bu mel na influence bu baax ci jeunesse <laughs> non non malheureusement nag man bon peut dama doon déglu nag dama leen doon déglu parce que aux États-Unis y avait y avait y avait ay groupes yu tuddoon. Euh, Euh, public ennemi parce que ñu ñooñu lañ tasantel ay public ennemi ay LL Cool J tu vois coïncider fii nag ak les deux rappeurs les les plus célèbres parce que à l'époque c'était c'était vraiment les deux là qui étaient les les leaders quoi donc ñooñu lañ doon accompagner boo xoolee sax même yére bii nii suñu benn cousin bu nekk États-Unis moom moo ko indil donc ñu bind ci Michigan donc on se de de de loolu et, tout ça mais je n'ai jamais été rappeur parce que aussi il y tradition de de chez moi man par exemple même fecc sax sama maam moom ma ko doon wax quoi euh, bu ma la mus a gis ngay fecc wala di dinaa da ngay wëy bon je ne critique pas aussi ñii di fecc ñii di wëy ah c'est pas en tout mais ku nekk ak éducation am donc loolu bokkul woon aussi effectivement ci sunu éducation si lu ñu doon permettre en tout cas daal au sein de notre famille quoi. bi bi c'était ma deuxième coupe d'Afrique ça maa ngi fi ak sama benn grand bu baax seeti Tidiane Ndiaye moo nekk photographe moo nekkoon après léegi léegi les échos fii ñu ngi demoon xam nga boo demee boo demee Égypte moom demoo ci moom yi demoo ci pyramides yi daanaka c'est presque tu es parti en Arabie Saoudite ba pare gisoo laa Mecque c'est presque la même chose donc dañ demoon bu ñu éliminé Sénégal en demi-finale on a fait une excursion ñu dem gis les momies dem gis les papyrus là dañ duggoon ci biir kii pyramides yi ci a suuf fi ñu doon enterrer les pharaons là foofu la demoon pour def une une une visite tout ça là aussi bon c'était ça c'était en 2006 c'était déjà euh, ma deuxième euh, coupe d'Afrique ma deuxième compétition. Euh, justement nga nekk journaliste euh, couvrir nga euh, campagne yu bari tey avant 2022 ban moo la gën a marqué moo xam bu ñu defee bu Sénégal amee defet la wala fu mu toogee la lan moo tax mu la. bon compétition yu bëri manqué na bu 2002 bi moo ma gën a marqué parce que on est parti jusqu'en final de la de la CAN elle était euh, importante mais il y aussi d'autres compétitions yoo xam ne man pour man dama ko doon gagné dama si doon am ay déception bu rëy comme par exemple bu 2017 euh, maa ngi continuer ba léegi di gëm ne en 2017 suñu Coupe d'Afrique la woon euh, malheureusement dañu tombé ci Cameroun en quart de finale ñu éliminé ñu te équipe Sénégal équipe bu baax la woon malheureusement bon on est on a quitté le Gabon à partir des à partir quarts de finale kooku métti woon na ma trop le but de Bata aussi ça m'avait fait très mal parce que on avait une équipe surtout au niveau de la pointe de l'attaque une équipe extraordinaire avec euh, Demba Ba Mamadou Niang Moussa Moussa Sow tu donc euh, de très très grands attaquants malheureusement euh, il euh, y a quelque chose peut-être Amara Traoré vous dira toujours que c'était du surnaturel c'était irrationnel avec trois matchs trois défaites match yëpp nag benn score bi la 2-1 2-1 2 contre Libye contre euh, Zambie ak contre Guinée équatoriale peut-être yooyu noonu métti na mais en terme de bi ma bànneex moom le saut moom c'est mooy bi nga mujjee wax. <laughs> bi c'est mes ce sont mes camarades de promotion euh, master 2 en journalisme ñeneen ñiy def euh, ñeneen ñiy def communication la je suis avec euh, l'épouse de madame Gakou par exemple Ndeye Fatou Seck qui travaille aujourd'hui à l'Observateur Aïssatou Benkan qui est là, Jean, Jean, Jean, Jacques Ngoursar, bon, moi je vois Danyoko aussi ki est du Mali, euh, je vois Mambi Diouf qui est aujourd'hui aux états euh, am na ay Nigériens. am na Cheikh euh, Cheikh euh, Bodian qui est encore là René Massiga Diouf qui est un camarade de promotion qui est à la RTS euh, Siré Soumaré qui a été euh, média officier de la Fédération sénégalaise de football ndeysaan dem si yàlla sama xarit bële Mamadou Lamine Mbaye moo nekk noonu moo taxaw ak Bekale Bekale c'est un Nigérian donc euh, c'était vraiment super quoi une euh, la promotion des U des U9 encore une fois je leur fais un petit coucou on entretient toujours de d'excellentes relations nonobstant parce que ça c'est 2006 si je ne m'abuse voilà. alors euh, kii moom booy wax euh, bon malheureusement nag je ne suis pas man affaire taalibe peut-être euh, kii wu ma trop même su fekkente ne omarien la mais kii mun naa wax ne presque sama sama sama sama marabu la quoi kii mooy Mbaye Kassé daanaka euh, nit ku baax la en tout cas bi mu juddoo ba léegi bi ma je n'ai jamais vu une personne aussi généreuse musuma ko gis ba pare mun liggéeyam yaatu vraiment généreux parce que tey génération actuelle bi ku lay bàyyi place am ñu désigné la ñu ne la yow yaay dem couvrir Coupe d'Afrique mu dindi turam mu ne la ko dewuma kii mooy dem loolu ci mbay kase laa ko njëkkee gis te tete na ma même li nga doon wax léegi nag ci le plan vestimentaire bi may ñëw sud man je continue à m'habiller comme ça dama doon ñëw di sol ay ngan di yëree naayeeg xam nga di di sol ay salopette temps yooyu Youssou Ndour euh, tu vois lu boy Medina quoi tu comprends entre guillemets donc day damay ñëw yenn saa bu jékki-jékki rek mu eh, tey dañ lay yónnee da ngay dem seeti Abdoulaye Wade président de la République j'étais content en tant que jeune reporter ma ne ah moi je vais aller voir le président de la République maa ngi fa lim jour boobu mais c'était pour mu pour ma benn affaire quoi ma pare rek dugg si douche bi borosu génnaat ak sama salopette ak samay basket quoi mu ne ma c'est comme ça que tu aller voir le président de la République ma ne ko grand lan mu ne ma journalisme c'est d'abord de la tenue et plus de retenue bu fi ñëwati di sol lii booy ñëw liggéey parce que on ne sait jamais depuis boobu nag laa jël ay affaire de salopette yi ak maillot yi ma doon sol ak yooyu yëpp ma rangé ko jox ko mes cousins commencé nag di changer vraiment si le plan vestimentaire ko mais loolu yëpp jaar-jaar la en tout cas nit ku baax la euh, jàngal na ma lu bëri wan na ma lu bëri may na ma lu bëri loo xam ne bay àdduna di tukki du ma ko mus a fàtte franchement à sud j'ai connu beaucoup de gens nañ ma parce que bi may ñëw foofu même allumé un ordinateur à l'époque c'était des c'était très compliqué c'était de très grands journalistes qui étaient là-bas euh, Mamali Konté je parlais Bakary Domingo Mané il avait Latif Koulibaly Safi Ly xam nga Malick euh, Diagne Malick euh, Rohiba qui aujourd'hui à l'AFP les il y là parce qu'on était sur le même immeuble mais lui il me couvait quoi il son boy moom moo doon tete moom moo doon yoon bi ba aujourd'hui Euh, je suis devenu ce que je suis devenu vraiment en partie c'est grâce à lui quoi Mbaye Kassé. la la superposition de ces deux la là aussi c'est c'est vraiment extraordinaire quoi euh, parce que boo xoolee maa ngi la doon wax léegi léegi les histoires de Naeg la boo xoolee photo bi nekk ci kaw ñii c'était notre première année. kii Sékou Diété la léegi aujourd'hui il est dans les hydrocarbures moom moo féetee euh, moom moo ma féetee côté côté sama côté gauche Sékou Diété c'est toujours un ami on entretient d'excellentes relations ba léegi. ki euh, topp ci man après moom après man euh, kooku c'est Papis Sané kooku aussi euh, il travaille aujourd'hui à l'INSIP on était ensemble ak Abdoulaye Ndiaye man ak moom ñoo bokkoon néeg fii sunu néeg lañ nekkoon première année on n'avait pas on n'avait pas une chambre de l'université donc dañ ñëwoon dëkk Gueule Tapée foofu la ñëwoon dëkk donc on se retrouvait tous les bu ñu université ñu ñëw on se retrouvait là-bas ataaya waxtaan faire les TD ensemble et tout bi nekk si suuf nag boobu là c'est ce sont mes mes amis d'enfance au kenn quelqu'un qui à gauche, c'est un ami d'enfance, euh, malheureusement, qui est alité actuellement, qui s'appelle Haroun Nassal. Euh, il était en France, mais il est, il est revenu présentement. Qui top après, sur ma droite, Koku Houdi Solo Toudou, Koku Samo Moramlo, presque même génération on est né dans le même village on a grandi ensemble et tout malheureusement il est décédé ak keneen ki topp ci moom mu ngi tudd Moussa Dia tout ça c'est des c'est des amis d'enfance euh, dans le village de de de Tchempeng et, nous avons toujours encore de de de de, de quoi. Tchempeng. mooy sa village <laughs> d'origine. tout le temps da nga koy euh, nekk na ci yow fierté. bon xam nga tey jii boo duggee ci. Euh, stade boo mënta dugg ci Sénégal wala les gens qui son dans le milieu sportif boo leen nee wan leen ma journaliste bu tudd Thiampeng man la ñuy désigner donc moi c'était c'était un challenge un tout petit peu parce que je suis venu d'un petit village euh, qui a 17 kilomètres donc euh, bi may bi may dem aussi je euh, moi j'étais toujours contre des gens qui sont ñuy xaw a décomplexés quoi donc euh, man je tenais à dire que je sais d'où je viens d'abord xam naa valeurs yi ma fay bàyyi xam naa kuy sama yaay xam naa koy sama papa xam naa ñan ñoo ma yar parce que yar bi foofu c'est pas sa yaay ak sa papa rek am na ay nijaay am na ay jarbaat am na aussi entourage am na environnement donc c'est un c'est village donc je tenais à apporter ça fu mu munta dem que nit ñi nañ topp euh, Cempeng Cempeng même Mamadou Niang quand il a été sélectionné pour la première fois au Sénégal bi ma ñëwee euh, ñu nuyante ba pare ma ne ko la question sur tes origines va sortir et réponds, tu de champion. donc c' était comme ça que c'est c'est c'est parti jusqu'à jusqu'à présent donc euh, lu ma mënta am aussi je peux pas oublier fi ma fi ma juddoo fi ma fi ma jógee village bi nga xam ne samay waajur samay maamaati maam ñoo ko sos euh, il est encore euh, là donc j'y retourne toutes les fêtes de Tabaski je suis là je travaille à Dakar j'ai étudié ici mais Euh, terewul ñun bon les vrais je ne parle pas des liens là et les sowen ou autres euh, ñun moom les caamel là il faut que tu toujours à la source c'est extrêmement important je ne peux pas y être euh, d'une manière permanente mais je m'efforce euh, quelles que soient les difficultés tabaski bu jotee ñun ñëpp on se retrouve là-bas xam nga encore euh, voilà quoi discuter de du développement de ce village là qu'est-ce qu'il faut faire parce que c'est c'est des petits villages si on ne fait pas ça si on n'essaie pas de vivre avec des associations trouver des gens qui nous soutiennent rek soo moytuwul euh, day xaw a doy waar quoi et puis day jëmmal dëkk bi je n'aime pas parler souvent de, de mois moi je mets toujours en exergue d'autres jeunes qui ont quand même aussi rehaussé le le nom du village j'ai parlé de Mamadou Niang je parle aussi souvent de Tako Fatim Thiam qui a été Miss Sénégal en 2010 et Miss CEDEAO en c'est aussi elle est aussi ses parents aussi originaires de de de de village du village donc loolu rek laa mën a delloo Cempeng loolu rek laa ko mën a delloo pour lui dire que leur enfant est encore là ki juddoo fii ci euh, village bi nga xam ne amul woon ndox amul woon courant je j'étudiais avec une lampe tempête sama yaay dadoon doon jënd cent francs ko ci def mèche ay mèche lañ doon def ci biir. ci kii bi su ma jàngee ba pare mu ñëw ëf ko pour économiser un tout petit peu donc ça c'est des souvenirs de de ce village il y avait pas de l'eau potable i y avait même pas de puits on buvait de l'eau du marigot donc tu vois fu je me souviens même en en 89 quand je passais mes examens en entrée en sixième j'ai marché de Tchempeng à Kanel c'était c'était 10 kilomètres et il pleuvait oh, on sait d'où vient donc on ne peut pas d'un seul coup c'est pour une nga ne da ngay couper moi c'est pas mon éducation, c'est pas c'est pas ce qu'on m'a inculqué. Donc je tiens à ce village-là, je tiens à mes origines, euh, voilà quoi. Donc c'est pourquoi j'en parle souvent. fii nag dama demoon seeti euh, grand marabout euh, Mouride euh, ma ànd ak sama xarit Mbaye Sène que tu très bien donc c'est Serigne Moussa Nawel laa demoon seeti fii yàggul noonu ma kontaan ci trop parce que Tidiane la ci famille omarienne bi ñun loolu lañu ñu xam si la ñu bokk et tout mais n'empêche quand même les grande autorités yu mel nii soo amee opportunité baax na ci souvent nga dem ziyaara leen euh, ñu ñaanal la aussi donc loolu moo nekkoon euh, motif de déplacement à Touba maa ngi ko ci gërëm di sant di ci remercier encore une fois moo ami et frère euh, Mbaye justement. Hmm. yaa lu gis ci famille mu mel ni da nga ko ci famille. Hmm. tey ñu gis photo bi. Eh, gis <laughs> ah, xam nga léegi su ma mais mes origines Haalpulaar et tout ça c' est un peu paradoxal que nga ñëw nga takk lébu eh, capverdien métis parce que ma femme elle est elle est métissée papam la yaayam di lébu moom moo nekk nii moom mooy première dame Mam Fatou Silva Monique Mam Fatou Silva. donc euh, c'est pour dire rek l'ouverture bi nga daan wax léegi léegi généralement les Haalpulaar on se entre nous euh, da ngay yeew fekk déjà indil nañ la foofu benn kii sa benn cousine wala yooyu noonu mais moi toujours été un tout petit peu révolutionnaire <laughs> entre guillemets donc je suis venu jusqu'ici j'ai comme li may faral di wax j'ai nagé 500 kilomètres pour aller jusqu'à Praia jëli foofu une Cap-Verdienne <laughs> takk ko yàlla may nag ñu am ñetti bant mooy Aminata di ma tuddee ko sama yaay mooy sama taaw eh, ki topp ci moom tudd Alassane kooku tamit mu tuddee ko sama sama sama grand frère notre aîné Alassane Thiam qui en France à Rouen ak euh, ki topp ci moom euh, tuddee ko double double double nom nag parce que Seydina Aliou mooy le cousin di prophète je tenais vraiment à ce nom mais yàlla dafa def aussi moom yaay papam mu ngi tudd seddina Aliou euh, Alioune Aline Aline Aline Sey donc euh, moo taxoon nag ma ma ma tuddee leen tur boobu noonu donc euh, kii nag particulièrement c'est ma c'est donc euh, yenn sa yi Alassane ak Aliou loolu lañ may tooñee quoi moom laa gën a moom laa gën a jege c'est tout à fait normal si tu remontes jusqu'au complexe d'Oedipe les filles sont beaucoup plus proches de leurs parents <laughs> de leur papa et les garçons sont beaucoup plus proches de leur de et c'est tout à fait normal donc là quand même c'est c'est une ay souvenirs yu am solo la ko Alassane moom waaw Alassane moom muy loolu quoi yenn saa yi day ñëw dina di ma naan man sa grand frère la man Alassane laa tudd donc euh, jël da ngay jël di privilégier sa yaay parce que Aminata Aminata <laughs> Aminata ma ne ko bon et puis bon c'est la c'est la joie eh man moom muy loolu quoi c'est avec les enfants si je peux être euh, malheureux ailleurs euh, et tout ne pas être content parce que nous exerçons un métier boo xam ne c'est très stressant Euh, c'est occupant. Euh, tu n'as même pas de vie de famille, mais les week euh, les, jours, mais les jours de repos, quand j'ai l'opportunité, je ne sors pas de chez moi, je suis toujours avec mes, mes enfants, j'essaie quand même de leur donner un certain nombre de bonheur. Surtout aussi, mais il ferait... man li ma jot a ñoom ñu bañ koo dund parce que pour moi c'était pas facile c'était très difficile comme je l'ai expliqué chez nous il avait que trois classes donc à, à l'école primaire il fallait se battre pour faire partie de ces ces élèves là bu ñu après tu à Canel à 10 kilomètres de chez toi tu pas de parents nga jógee foofu nga dem Saint-Louis jàngi voilà et après tu à l'université donc c'est très très compliqué donc euh, eux j'essaie quand même de leur donner quelque chose peut-être moi que j'ai pas eu pour au moins qu'ils aient une trajectoire en tout cas par rapport à, à la mienne ndax yaa ngi bon là moom je crois que c'est lu mu mun sa def si sama carrière yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp lii nii moom a gën a neex moment bi parce que là quand même c'est au moment où dem Makka umra ji man ak mon ami Bamba Kassé photo ba fi ma taxee ak moom ñu ngi jógee Médine ñu ngi jógee Médine sangu ba pare di waajal dem euh, Makka là c'est quand je suis allé jusqu'à toucher la Kaaba. c'était vraiment des moments de des moments intenses euh, soo gisee maa ngi ñàkk tooy xep parce que bousculade bi et tout mais yàlla sutural na ma ba ma fi ñuy dugal sa bopp man j'ai j'ai mis ma tête jusqu'à l'intérieur donc euh, je me disais que lu ma munta am ci àdduna aussi ay aller dans des compétitions regarder des finales de coupe du monde coupe d'Afrique tout ça là en tant que musulman defe naa lii moom moo ëppul solo quoi donc ça j'y tenais vraiment et donc euh, c'était lors de la coupe du monde kon Qatar la nekkoon soriwul Arabie Saoudite euh, je suis parti à Médine julli d'abord ci euh, sang sang yi le prophète sallallahu taala sallam voilà ziyaare ko dem ziyaare foofu noonu yëpp après joge fo dem Makka aussi def safra ak marwa après ñëw kii bi nii quoi ci ci Kaaba bi jullee foofu. bon loolu je pense que c'est presque inexplicable wax dëgg yàlla je m'y je m'y attendais pas parce que j'aurais bien mais actuellement nii parce que mun naa ko euh, le faire pour mes parents parce que sama yaay génn na àdduna yàgg na surtout moom et puis encore sama papa aussi génn àdduna moment bi nga xam ne ñoom ñaar yi bu ñuy génn àdduna fekk déjà ma dara maa ngi jàng et tout Euh, donc euh, bi ma fa demee j'ai pensé à eux ñaanal naa leen donc je crois que c'est important j'ai prié aussi pour ma famille j'ai prié pour mes enfants pour mon épouse et pour muy prier pour mon pays pour mon continent donc euh, yàlla rek xam c'est vrai que ici j'étais la foto bii nii maa ngi ci Kaaba bi mais quand je suis venu aussi ba gis fu le prophète sallallahu taala alayhi wa sallam moom si boppam fu mu tëdd loolu aussi c'est c'est vraiment immense j'ai eu comme l'impression que les lumières là aussi c'était la même chose xaw ma peut-être que c'est c'est c'est c'est l'impression que j'ai eue c'était tellement clair dans ma tête que je me disais que non lii lamp mënul mel ni est-ce que du kaaba bi moo moo yokk leeraay bi et ça ne désemplissait pas donc il y tellement de monde j'étais tellement heureux euh, je me disais que bon là su ma ñibbi di génn àdduna sax euh, c'est bon quoi parce que vraiment j'ai atteint tout ce dont j'avais envie tout ce dont j'avais rêvé c'est bon donc le reste ce n'est police quoi pour moi vraiment. alors lii c'était CAF Award la CAF Award bi mujj bi ñu organisé Marrakech boobu la je vais rencontrer là-bas Aliou. qui aujourd'hui quand une icône en Afrique une une fierté pour sunu continent bi yëpp. balaa nga koy xam rek nga génn à l'extérieur bon nul n'est prophète chez soi généralement on peut te critiquer et tout mais boo génnee rek nga xam quand même dimension bi Aliou Cissé yóbbu Sénégal donc c'était important keneen kii aussi c'est Dadju compte de son parcours et tout il était là-bas moom moo doon animé soirée bi bi ñu on était dans la même salle pour dîner on était juste côte à côte donc euh, c'était fondamentalement pas pour moi parce que c'est pas je suis pas un grand fan de de Dadju moi euh, maître Gims mais et je l'ai fait plutôt pour mes nièces euh, ma nièce qui est en France qui s'appelle Eva et mes nièces qui sont ici Houley Barbara Acha elles aiment vraiment et ma, et ma fille aussi quoi ils aiment xam nga les enfants là quoi donc je me suis dit bon je pouvais pas ne pas le faire je l'ai même j'ai même appelé enregistré pour dire que bon voilà il est là c'est c'est c'est Dadju donc votre fan c'était pour leur faire plaisir plutôt quoi hmm. alors bii nag ñu ngi gis euh, Diané Ndiaye xàmmee euh, naa bi. ci gën a yàgg c'était en 2010 mooy bële bi nga xam ne maa ngi sol costume noonu c'était ma première coupe du monde première coupe du monde boo xam ne aussi équipe nationale Sénégal qualifié mais première coupe du monde bu ñu organisé ci Afrique mooy Afrique du Sud yàlla def nag ma dugg ci avion bi ma dajee fa ak des moon Tutu te man ak sama parcours et tout ça suis un peu révolutionnaire entre, entre guillemets. J'aimais ce personnage de moom ak Nelson Mandela, Cyril Ramaphosa, am nga Steve Biko, tous ces gens-là bi ñu nekkee xale on les adorait ma m'attendais pas à dinaa daje moom ci avion ñu wàcc rek ma ma ma gis ko daw ñëw ma ne révérend révérend di daw ci ñëw si moom mu tourné rek mu ne ma eh, where do you come from fan nga jógee ma ne ko sénégalais la rek mu ne ma na def ma ne ko non lii moom c' est incroyable j'ai pris une photo avec donc coupe du bokk na si coupe du monde yi ma gën a marqué parce que j'ai aperçu j'ai vu Mandela je moom ma gis ko donc c' était très important pour moi un jeune noir africain ñi nga xam dañ doon xeex pour nit ku ñuul di xeex pour euh, contre l'apartheid euh, man nga dund ko donc euh, c' était important il fallait que j'immortalise ce, ce, ce moment là et d'ailleurs quand je reçois toujours des stagiaires chez moi j'ai cette photo accrochée sur le mur de mon bureau je leur pose toujours la question de savoir est-ce que vous connaissez celui-là Et bizarrement, si tu me dis que tu ne connais pas, je dis bon, est-ce que tu connais Desmond Tutu Les jeunes d'actuellement actuellement, ils disent, toujours disent non, je ne connais pas. Donc ça aussi, c'est un gros souci que nous avons. Donc, euh, quelqu'un qui, c'est, on ne le présente plus, c'est Mamoudou Diagne Ça, on était vraiment en train de discuter euh, à Bateau Rompu. C'est une très grande personnalité du, du monde, pas seulement, parce qu'il est membre du CIO. il n'y a que cinq Africains sénégalais qui ont pu entrer là-bas. Donc j'ai cette chance-là, au moins dans mon parcours, d'avoir connu aussi de très grandes personnalités comme Mom, comme Lamine Diak, comme Augustin Senghor. Euh, D'ailleurs, dans mon magistère, ces gens m'ont beaucoup aidé. Mom Matarba, c'est le moment de, le, de, les, de, les, féliciter aussi, de les remercier. On parle beaucoup de ce que nous avons eu à faire. Mais Bounekoulouni, Def, particulièrement lui, Matar, Lamine Diak, qui nous a Là, j'étais dans la dans je quittais je Qatar laa jóge woon là où j'ai mis la casquette je quittais le Qatar dama doon ñibbi c'était la finale de la coupe du monde bi ñu paree may ñibbi ma bokk vol ak euh, man ak moom ñoo dendoon sax quoi euh, euh, l'attaquant du FC du FC Barcelone là il n'a pas joué la coupe du monde c'est l'ami intime de Messi j'ai oublié le nom Euh, ça va me revenir peut-être, mais je ne pouvais pas ne pas immortaliser ça parce que c'était quelqu'un que je trouvais extraordinaire. Malheureusement, il n'a pas eu la chance de jouer la dernière, la dernière Coupe du Monde. Quoi. Il a marqué nul, il a marqué Manchester City. Et là, c'est mon prédécesseur. Là, c'était le congrès de Dakar. J'étais parti accueillir l'ancien président de, de la IPS Afrique, le Nigérian Obi, Obi Mitchell. Donc, je partais à l'aéroport pour le, pour le récupérer. Quoi. Voilà. Vous venez tamit couvrir une Coupe du Monde du Bali. Euh, ban coupe boo xam ne Sénégal participé na ci euh, sur le plan euh, footballistique ak performance boo xam ne moo la gën a marqué. bi bu gën a marqué mooy bu bi parce que c' une première d' abord marqué na ma depuis ci qualification Sénégal à Windhoek retour bi bu ñuy accompagner l' équipe nationale def nañu cinq heures de temps entre aéroport et et et le palais présidentiel donc dama koy faral souvent su may xeexal waa athlétisme. mais dama leen di naan mettez le curseur sur l'équité mais pas sur l'égalité parce que may joxe exemple yooyu ma ne ko ñun bu ñu bu ñu qualifié coupe du monde entre l'aéroport Léopold Sédar Senghor fii ak le palais présidentiel on a fait cinq heures temps Ami Mbacké Thiam en 2001 elle remporte l'or à Edmonton ñu jógee aéroport encore di ko au palais on a même pas fait 30 minutes donc loolu rek man doy na ma misaal pour nit ñi bàyyi ci xel donc la di Sénégal. Même si aller aussi en Russie, ça m'a permis aussi de découvrir un très grand pays. Euh, ça m'a fait aussi de faire tomber beaucoup de clichés. Parce que Balangay de Russie, en tant qu'Africain, on, on, catalogue les riches comme étant des gens hyper méchants, ceci ou cela. Bon, on s'est rendu compte aussi que généralement, tout qui aussi ça te permet de, de, de, découvrir beaucoup de choses, euh, ça te permet de, de rencontrer d'autres cultures. lu bëri luñ lay wax euh, méngoowul ak dëgg bi quoi. lii c'est là c'était ma première rencontre en tant que président de la IPS avec le secrétaire général de la CAF parce qu'il fallait ñu waxtaan ñu xool lan lay CAF ak AIPS mën a liggéey deuxième photo bi man ak euh, présidente de la commission féminine bu AIPS ak moo nekk aussi tey président association union nationale de la presse ivoirienne balaa coupe d'Afrique bi di commencer dafa amoon benn séminaire bi ñu amoon Côte d'Ivoire il fale que ma ma dem foofu maa ngi foofu ak moom mooy Kati Touré euh, bi nekk ci suuf bi marocains yi ñoo ma invité woon ci benn forum bi amoon euh, Rabat kii c'est le ministre marocain de la jeunesse moom laa nekkaloon fii dañ ma doon jox foofu benn raaya bi nekk ci dëkk bi man ak sunu consoeur Kati euh, Kadiatou Traoré lii nag dañ doon signé benn comment on appelle ça encore quoi benn acte daal pour wane ne Guinée ak Sénégal benn la parce que dañu amoon benn conférence de presse sénégalais yi ak Guinée yi dañ doon xeex foofu mooy journaliste yi moo tax nag ma jël benn écharpe bu Sénégal indi ko moom mu jël écharpe Guinée ñu échangé joxante loxo devant journaliste yëpp pour nit ñi xam ne football moo ñu boolee te journaliste mënul nekk supporter da ngay def sa liggéey soo paree nga dem sa yoon. beneen bi nag je suis avec mon ami Mbaye Sène là c'était les derniers CAF Awards euh, trophée CAF bi lañ téye fii ñu jël ko immortaliser ko mooy sunu passage à Marrakech quoi. premier défi bi c'est formation parce que dernière coupe d'Afrique bi ñu bi ñu def gis nañu ay journaliste am ay comportement boo xam ne du comportement journaliste parce que journaliste lu mu métti métti nekkal journaliste rek sa équipe nag waxuma nag journaliste dafa nekk euh, il faut que nga considérer man par exemple damay jàppee sama bopp sénégalais la avant may nekk journaliste waaye nag sama équipe nationale buy football lu ma ko munta supporter na yem intérieurement mais du ma nekk ci tribune presse di yuuxu di xataraayu di daw mel ni Issa Laye Diop wala wala keneen non man du ma supporter journaliste la donc euh, loolu gis nañu ñu bëri am comportement boo xam ne baaxul loolu baax na aussi nga tàggal leen parce que léegi boo gisee macha allah am na ñu bëri organe de presse non seulement bëri nañu mais aussi jeunes yu bëri dañuy faral di dem Coupe d'Afrique c'est important pour que jeunes yi mun a découvrir compétition yu mel noonu ñu yokk seen mais balaa ñuy dem baax na ñu tàggat leen parce que journaliste métier bu noble la comme li ma la ko waxee woon sànq da ngay am tenue d' abord journaliste waroo sol lu la neex déet doo walaakaana mais waroo sol aussi lu la neex lu la neex nga solo lu la neex nga comporto déet da nga war am tenue mais da ngay am aussi retenue da ngay am retenue sooy bind nga xam ni ngay bindee sooy xam nga sooy wax nga xam ni ngay waxee sa équipe bu dugalee di nga kontaan mais jarul ngay nekk ci transformé wu tribune presse ba nit ñi yëpp di la ràññee di la gis nga transformé en supporter loolu du du lu baax ci ci Afrique waxuma rek bu Sénégalais yi mais gis nañ sax ay journalistes ghanéens dem bloqué. biisu équipe nationale gana parce que dañ leen éliminé te loolu du du wareefu journaliste donc yooyu waxtaan nañ si ak CAF waxtaan si ak FIFA waxtaan si ak sunu ay yeneen bailleur pour ñu former tàggat journaliste yi beneen bii mooy compétition yi ñuy def day faral di bëri mais gis nañu anglais dafa occuper place bu prépondérante baax na aussi journaliste ñu tàggal maa ngi li waxaat encore journaliste sénégalais première fois bi may njëkk indi pour former nit ñi ci anglais dama dem waxtaan ak benn institut ñooñu ma ne dañuy fay 50 pour cent jotuma lu ëpp benn nit deuxième fois bi ma dellu siwaat ma dem trouver beneen sponsor mooy maa ngi remercier encore une fois madame Sophie Diallo moo nekkoon 3FPT mu defaral ñu 90 pour cent ANPS 10 pour cent kese la doon fay donc finalement premier cohorte bi 25 pour cent ba léegi mënuñu fexe ba amaat encore d' ala alors loolu dañ lay former léegi bii pas doo fay dara donc 3FP moo koy def ANPS complété li ci des donc war nañu mun a ñëw quand même ñu jàng anglais parce que dañuy renforcer seen capacité surtout dafa nekk métier boo xam ne amul lenn li ngay acquérir définitivement da ngay continuer di performer wu rek. donc beneen aspect bi fi may jeexalee mooy intelligence artificielle loolu aussi il faut ñu tàggat journaliste si ci la ci ci la bokk parce que soo moytul suñu métier bi intelligence artificielle def ko nar a rey tey jii ak les fake news euh, trouvé guñ sax antidote bi. mu ngi ñuy réew mi parce que léegi da ngay jël sa photo nga dindi ko jël photo keneen euh, nga jaawale nit ñi indi ay problème parce que sénégalais yi 70 pour cent wala wala plus sax jànguñu donc am na ay yoo xam ne mun nga sax jël sama baat teg ko ci ndodd beneen ñu yaakaar ne man maay wax alors que du man maay wax donc loolu yëpp jar na nga tàggat ci nit ñi surtout commencer par les journalistes la donc loolu moom nekk na benn projet bu rëy rëy boo xam ne AIPS war na ko war bi ñu mujjee def nag mooy la nuit du sport africain boobu dañ ne at bu nekk day am ay joueurs africains yoo xam ne waxuma sax mun nañu gagné coupe d'Afrique waxuñu mun nañu gañee ballon d'or mais dañ leen xoromalul ci distribution ballon d'or bu ci mujj rek mooy Sadio Mané en 2019 man waxuma 2019 war na ko gagné mais Sadio Mané ko bu mu bañ a nekk sax troisième ci ballon d'or 2019 loolu c'est un scandale te loolu wax naa ko waxaat ko te ma ci dindi lu toll ni tarfatal ay ni donc loolu il faut que ñun aussi suñu wàllu bopp ñu xam ne ballon d'or France Football ko moom the best FIFA moo ko moom ñun africain journalistes yi war nañu créer suñu yëfu bopp di ko jagleel suñu ay athlètes ñu trouver nag benn capitale africaine boo xam ne at bu nekk dañuy dajee foofu feete sunu ay dirigeants feete sunu ay athlètes nga xam ne ñoom tamit dinañ xam ne am na ay journalistes africains yoo xam ne kat ñuy reconna am reconnaissance ci wàllum liggéey bi ñuy faral def boobu mooy lekk le tout dernier chantier bi nga xam ne AIPS Afrique sumb na ko. bii c'était la coupe du monde des clubs Rabat bu Maroc organisé woon ma àndoon aussi ak euh, Mbaye Sène fii ñu daje ak euh, journaliste ah, des journalistes kii na kii teg dënd ak Mbaye kooku algé euh, égyptien égyptien la Gouda la tudd keneen kii dënd ak man noonu à ma droite kooku Mufti la membre comité exécutif bu AIPS la woon ak keneen kii c'est le photographe un photographe tunisien laa nag dañ demoon pour campagne yi man ak Mbaye pour ñu jël Sénégal jël poste AIPS Afrique bi bi nekk ci kaw nag dama jëloon foofu benn photo rek avec Euh, Kamavinga mooy bi ñu Real gagné affaire bi ba pare ñu nekkoon ci zone mix bi quoi mu rombo ñu foofu rek ñu ndoog di waxtaan voilà. nga demoon euh, defi campagne ak euh, Mbaye Sène. Mm-hmm. jël lii di poste AIPS. Mm-hmm. bi nga gagné poste boobu sax nag gis nañ ne président de la république sortant bi di Macky mm-hmm. dafa defal benn poste ci Twitter muy X léegi di lay félicité ñu gis la tam à côté ngeen am benn certaine complicité yéen ñaar seen rapport lan la woon. ah Macky nag man nag moom euh, man amu benn président bi ma xam ku dul Macky Sall par Abdou ab ab Macky kii Senghor bu fi nekk boobu bon naa wax ne bu ma jël pouvoir juddooguma bu muy bàyyi pouvoir peut-être que j'étais à l'école primaire wala sax dugguma école euh, Abdou Diouf université 2000 j'étais là-bas buy gars yi di ko xeex je faisais partie des gens qui ont qui ont voté pour Abdoulaye Wade en 2000 parce que j'étais encore étudiant donc Macky Sall laa gën a xam mm, moom laa gën a miin parce que aussi dafa yàlla def def aussi ñëw na ba sama village fanaan fa ñaari ñaari guddi euh, bi ñuy njëkk a wax sax man ak moom bu ñu mujjee wax man ak moom téléphone yoro jaamoo moom ko paasoon mu jël téléphone mu dem Ablaye yéen waa Cempeng est-ce que doo ay chinois di tooñ quoi mun ay chinois ngeen de chinois la ñu indi fële teg leen fële ci Fuuta yéen il ñu xoolaat leen donc mu amoon chance boobu ak moom quand même c' était la première fois may am relation et deuxièmement aussi pourtant paradoxalement loolu moo tax nag Sénégal neex ma je n'ai jamais été tendre envers lui parce que boo xoolee samay bind bind naa ay articles yu bëri ci doxilinam surtout sur son bilan immatériel euh, wax naa ci lu ma neex mais ça me fait plaisir ku mu mun a def toujours distinguo bi entre sama plume sama profession ak relation yi ma mun a sekk ak moom c'est que dañu waroon organiser africain dañu war a ñëw fii te AIPS ñun Sénégal ñoo ko waroon organiser ANPS te amuñu woon xaalis ñu dem gis ko lii nii jour boobu noonu la Macky Sall permettre ANPS mu organiser ko parce que hôtel bi ñu ngi fay 28 millions hôtel Fleur de Lys bu fii bu nekk Point E te 30 millions la ñu joxoon moom Macky Sall joxoon ko ANPS moom la ñu utiliser pour ñu mun a accueillir les journalistes africains et du entier pour fii fii si fii si suñu réew te aussi ci magistère am AIPS organisé na foofu noonu booy mooy troisième fois parce que en 2013 organisé ñaari yoon benn yoon bi sax dem nañu ba ñu recevoir ñu moom président Macky Sall ba décoré suñu président AIPS monde donc moo ko maa ko ci delloo njukkal bu baax a baax a baax euh, bi ma paree bi ñu ma falee aussi mu defaral ma nag euh, ce tweet la tweet bii nag wax dëgg yàlla wër na wër na adduna bi yëpp parce que quand un président de la république euh, bu bindee ci compatriotam di ko féliciter chaleureusement ci nomination ci élection Euh, defe naa li tukulóor di wax ɗomol jaaɓi ha tirdi donc euh, <laughs> c'est une bonne chose ça m'a ça bon ça m'a créé aussi d'autres problèmes parce que il sait mes parents halpulaar la il croit que président AIPS moom man nag léegi man maa raw sax euh, Diomaye Faye quoi alors que c'est juste un titre honorifique <laughs> voilà c'était c'était ça c'était vraiment des moments très intenses maa ngi ko ci gërëm di ko sant encore une fois pour l'apport qu'il a apporté à la presse Euh, sportive sénégalaise, notamment dans les compétitions pour, comme la Coupe d'Afrique, hein, parce qu'il nous a toujours soutenus, Coupe du Monde, il nous a toujours soutenus. Non seulement il nous donnait une subvention, mais si nous Coupe du Monde aussi, si nous avons Faral, en il a encore pris 30 000 euros pour nous soutenir encore davantage la presse sportive de son pays. N'empêche, personne ne nous a jamais empêché de faire correctement notre le plan Euh, reprocher quoi que ce soit par rapport ak relation yi ñu mën a am yoo xam ne c'est des relations personnelles. alors yaa ngi koy couvrir nga campagne bari moo xam coupe du monde moo xam CAN euh, léeg-léeg maison de la presse yi ngeen di def ci yenn réew yi moo xam Afrique la euh, yorin bi dafay xaw a metti Euh, cette fois ci je pense que la dernière sortie bi ngeen def ci CAN Côte d'Ivoire bi amoon ngeen fa ay jafe-jafe ndax mën nga ñu wax exactement ce qui s'est passé. bon Coupe d'Afrique bi mujj parce que généralement ñu balaa ñuy dem état bi daf ñuy faral di jox euh, benn subvention fédération sénégalaise de football jox ñu subvention état bi jox ñu subvention mais bii pas subvention bi dafa yéex ba pare dafa changé. parce que bu njëkk ba dañu doon jox de l' argent liquide ce qui def su fekkente ne du dëkk en Afrique euh, de l'Ouest nga def sa change. yóbbaale sa xaalis bi mun a jàppale journaliste yi bii paa nag euh, dañu dem ba egg Côte d'Ivoire te jotuñu suñu subvention donc euh, mu amoon tuuti quelque difficultés au niveau de l' administration d' après ce qu'on nous a ñu dem ba Côte d'Ivoire nag te de hôtel bi nag il faut nga fay ko mënuñu woon fay hôtel bi finalement sax dama mujjee ñibbi si ba Dakar parce que c' est après euh, que Abdoulaye Fall PR de l' État nous a aidé un peu pour ñu mun a recevoir xaalis bi mun a dugg suñu compte te bu duggee si compte bi képp ñëpp kuy kuy gérer association xam na ne association ñaari signature moo ci nekk mooy président bi ak bu trésorier donc chèque bi boo ko libalee il faut yow nga signer sa trésorier signer pour ngir mun a jot xaalis donc comme chèque la il faut que kenn si ñun jógee ba Côte d'Ivoire ñëwaat donc moo taxoon nag Mamadou Niang dafa signer benn chèque jox ma mu def ci montant bi man ma egg ba Ndakaaru signer ñibbisiwaat encore ba Côte d'Ivoire te loolu aussi il faut nga wut autorisation sorte génnee lu toll ni 40 millions ci Dakar yóbbu ko ba Abidjan yóbbu ko ba Yamoussoukro loolu moo tax nag finalement ñu amoon quelque difficultés te d'ailleurs maa ngi fàttaliku ñu ngi jot suñu xaalis à partir de huitièmes de des huitièmes de finale bu Sénégal di jouer contre Côte d'Ivoire man bi ma wàccee aéroport Sénégal mu ni mu ngi mënee 1-0 may dugg Yamoussoukro la Ivoirien yi donc jotuma sax seetaan match boobu donc tu waa a cause de les difficultés yow xam ne amoon nañ ko ci Coupe d'Afrique mu nekkoon guléet nag mais entre temps on a discuté avec euh, le ministre euh, Yankhoba euh, le ministre Lat Diop on a arrondi les angles d'ailleurs sax même Coupe d'Afrique bi coupe les Jeux africains yi passé fii nii jox na ANPS trois billets d'avion pour ñu dem ak prise en charge totale pour ñu désigner ay membre am ñu dem fële ca ñu couvrir compétition bi en tout cas lu ñu mënta def état du Sénégal daf ci mus a jàppaloo xam bii paa nag dafa amoon quelques tolof tolof rek mais tout est fini a fini par rentrer dans l'ordre j'en profite aussi que parce que si foto bii nii yaa ngi gis maître euh, wax dëgg yàlla ku ñu jàppalee la yaa ngi gis Mame Boye Diao là si afro basket basket euh, basket loo waroon ki Kigali c'est moo nekkoon directeur CDC moo ñu woowoon foofu ñu signé benn convention mu joxoon ñu 2 millions loolu moom l'ONAS aussi à l'époque euh, kii moo fa nekkoon Lat Diop joxoon ñu 3 millions cinq millions yooyu noonu moo permettre woon journalistes yi pour ñu mu leen euh, jàppale Augustin Senghor aussi depuis bu fi nekkee ba léegi Matar Ba moom n'en parle même pas euh, bon man la chance en tout cas si sumay magistère dama tombé ak ay nit yoo xam ne balaa may nekk président samay nit la ñu woon samay xarit la ñu woon donc bi ma nekkee président dañu continuer aussi di jàppale association bi te maa ngi ñaan yàlla rek noonu loolu loolu aussi na na bi nekk ci suuf man ak sama grand Abdoulaye Dabo ak euh, Lilian Gatoum la ñu Canal Plus invité woon parce que là aussi moi je tiens à ces genre de situation les expliquer man j'ai toujours été contre nga may jëlal ay tubaab extérieur indi leen nga leen na ñëw defal ñu fii ay ay séminaire man loolu dama koy mus a bañ ku ma woo nga ne ma am naa fii kii day ñëw def damay naan su fekkente ne expertise nga bëgg man am naa ko fii expertise locale te ñoom ñoo gën a xam suñu culture ñoo gën a xam suñu tradition Ablaye Dabo a ngi fii Mamadou Koumi a ngi fii euh, Cheikh Tidiane Ndiaye a ngi fii mon grand frère Babacar Khalifa Ndiaye a ngi fii ak ñeneen ak Ablaye Diaw ak Pathé Fall Dieye euh, Mazib Sène ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne def nañu compétition yu dul jeex ils ont une carrière bien remplie ñooñu war nañu mun a transmettre seen savoir faire et savoir être à la jeunesse à la nouvelle génération moo gën nga may jëlal nit ñi di leen jëlee à l'extérieur donc toujours je fais une condition sine qua

lu ko jiitu bàyyi ma bàyyi la nga <laughs> avec mon ami et petit frère Bakary Bakary Dabo Bakary Bakary Cissé Bakary Dabo aussi c'est un ancien promotionnaire en euh, ancien collègue de Sud. la man ak moom ñoo nekkoon Kigali on était parti au congrès xam nga rek ñun dañuy bëgg a football bi daal wala sport bi fu lu fu munta am si àdduna bi rek dañuy bëgg a teewee pas seulement compétition mais quand il y a des grandes décisions qui doivent être prises lii élection où euh, Gianni Infantino la donc il fallait ku ñu nekk foofu il y aussi des élections de d'autres Africains il fallait que ñu nekk foofu man moom ñoo andoon foofu ci ci Kigali beneen bi maa ngi nekk ak fii bii dama demoon campagne mais dama demoon Maroc baax na ci aussi boo ñëwee ci dëkk nga rencontrer l'ambassadeur maa ngi remercier encore Marème Dial moom moo nekk ambassadrice bu Sénégal bu Casablanca bu Maroc euh, xam naa ko à Praia parce que Sénégal bu muy dem di jouer éliminatoire coupe du boobu laa ko njëkk rencontré euh, mu teral ñu nag wax dëgg yàlla mu taxaw ci dimbali journaliste yëpp taxaw leen bu baax a baax a baax a baax donc depuis boobu on a eu ces mêmes relations là ba ñu affecté ko fële ca Maroc mu nekk foofu ambassade nekku ku ouverte donc j'étais parti lui lui diir bonjour et on a profité pour présenter la photo maa ngi fàttali ko sax ndeysaan mu ne mais yow sénégalais buy buy buy buy buy xëccoo ak euh, euh, marocain et eh, parce que eh, est-ce que di nga dóor marocain ma ne ko non ñun ay sénégalais ñu ragal là aussi je suis avec euh, un ami El Hadj Diouf je l'ai couvert de 2002 de ba mu bàyyi sa carrière dafa nekk nit ku généreux nit ku baax wax dëgg yàlla je n'ai jamais vu un joueur aussi généreux ko El Hadj Diouf musuma ko gis nit ku bien sincère fidèle en amitié wax dëgg yàlla euh, là c'était le jour de son anniversaire il m'avait invité ma femme et moi à sali ñu dem fekk ko foofu donc euh, et jusqu'à présent nous entretenons d'excellentes relations je tenais vraiment à lui faire encore un grand chapeau c'est une fierté pour pour nous tous Euh, lu mu am partagé na ko ak sénégal yi c'est un homme bien en tout cas borom xol bu rafet la loolu daal mun naa ko seede ci moom wax dëgg yàlla il a un très joli cœur waaye. ñu gis bi nga xamante ne tamit CAN euh, euh, Cameroun 2022 bi ñu gagné. Eh. prise moom xaw ma noo def ba ba ba ba mën ko eh, dama doon jooy parce que dama ko doon camoufler dama camoufler camoufler camoufler ba mënatuma camoufler maa ngi gis ñoom ñoom Bakary di daanu fële ah, xale jigéen yi déjà j'avais cinq fii ñu tong tong en syncope ma tourné fële ñu woo ma président kii daanu na fële de président kii daanu euh, na xamatuma sax benn jour maa ngi fàttaliku sax maa ngi jël ascenseur yi di yéeg di wàcc yéeg di wàcc ba benn moment <laughs> ma dem <laughs> dugg directement dans les vestiaires dama wàcc rek wàcc ci biir vestiaire joueurs yi ma dajeeg ñoom Ablaye Sow ak ñoom Diao Baldé Keita ku nekk teg musique am di fecc quoi tellement c'était c'était extraordinaire là j'étais avec euh, un collègue Oumar Diaw euh, mënuñu ko fàtte wax ne kontaanul jour boobu les gens parlent de ce qui s'est passé ici, mais chez nous, là-bas, là, à, à, au stade Olembe, c'était inexplicable. Quel monde l'a rapporté D'abord, c'est au Cameroun, la boo xam ne daf ñu Sonal, ci voit la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique plutôt, organisation Coupe d'Afrique, fait fi a ñu tere ñu terrain 2017, gagné nous en ba dëkkam a ko ci surtout concurrence bi am entre Cameroun ak Sénégalais rax ci dolli encore nga battre Égypte de Mohamed Salah ce euh, penalty de Sadio Mané ak relation man yi ma am ak moom yëpp maa ngi maa ngi fàttaliku ba léegi ndeysaan y avait les Rodrigue Bengalais y avait mes amis maliens qui étaient au-dessus de moi Sadio dafa raté woon penalty à la quatrième minute bu mu jëlee bal bi maa ngi toog ma ne ko mais mon petit il faut pas prendre cette balle là quoi j'avais des larmes aux yeux mais je me contenais quoi bon on dit que président du jooy ah <laughs> je sais pas si c'est vrai ou pas <laughs> donc mais quand il a exécuté cette frappe là ah non là euh, je pouvais plus me retenir mais bon j'ai pas fait quand même comme ñeneen ñi quoi comme sama boy yi quoi ñoom Bakary affaire yooyu noonu di jooy à sud larme la gars yi di leen yënu non man président la nag il faut aussi souvent séeréer yi bañ a am lu ñu may toppee quoi moo tax j'ai essayé de camoufler ça quand tu regardes très bien doo xam ne y avait vraiment de l'émotion mais euh, pour dire vrai quand même j'ai j'ai laissé couler quelques quelques quelques quelques larmes quoi en ce moment là waaw ñooñu moom ñoom Soda yooyu noonu sonal lañ ma trop Soda Thiam Fat Diouf Fatou Kiné Silla non mais c'est c'est c'est fou il y avait Laliaba il y avait Ndeye tout le monde pleurait mais bon c'était des larmes de joie aussi quoi à un certain moment donné parce que même ça fait 57 ans qu'on derrière ce trophée continental là donc chaque coupe d'Afrique bu on dit que c'était la meilleure équipe depuis 65 ans c'était la meilleure ñoo ñeneen ñi nii non 68 la moo gën ñi ne l'équipe de Cheikh Seck et autres ñeneen ñi ne non c'est 90 euh, ñeneen ñi non 92 là tu remontes jusqu'à 2000 2002 et ainsi de suite mais là on a touché le Graal donc euh, franchement il fallait le faire et et ils l'ont fait moi je me souviens mon commentaire d'ailleurs c'était ça ils l'ont fait euh, il fallait leur rendre euh, un vibrant hommage et surtout que il y avait un manco je sais pas comment est-ce que la fédération a pu trouver ce slogan mais il fallait le faire et bizarrement, paradoxalement, même la presse, euh, moi, cette canne-là, à un certain moment donné, j'ai cessé même d'être journaliste. J'étais presque devenu, entre guillemets, euh, une sorte de, consul, de, de, conseiller, entre guillemets, de, de Aliou, de, de Senghor, depuis ici, de veiller sur certains écarts de langage. Je me souviens, on a fait un tirage au sort en, de la Coupe du Monde, en pleine Coupe d'Afrique. pour nous dire que le Sénégal va rencontrer l'Égypte. Mais j'ai fait éruption directement chez Aliou Maneko. Demain, la question sur le tirage au sort de la Coupe du Monde va venir. Tu ne réponds pas à cette question. Si on te la demande, dis on a une finale de Coupe, du Monde, à Coupe d'Afrique à jouer, on la joue et on en parlera après de la Coupe du Monde. Parce que j'ai trouvé incongru qu'en pleine compétition de Coupe d'Afrique, on est en phase finale, de, de on, est, on, est, à la veille de la finale, qu'on se permet de nous faire un tirage au sort pour... pour, pour voilà, c'était de la diversion à mon avis. Donc, moi je, tenais à ça et j'ai sorte aussi que avant ñuy dem parce que les rapports étaient très tendus entre Aliou et, et, et l'équipe nationale du Sénégal c'est là que j'avais lancé cette fameuse phrase l'équipe nationale n'est pas un bunker mais l'équipe nationale ne peut pas ici non plus être un marché il faut qu'on trouve un juste milieu et d'ailleurs dans l'histoire c'est la première fois que ñu gis Aliou Cissé entraîneur d'ailleurs déplacé jógee euh, il a euh, au niveau de Tajidor Garden, là où il y avait l'équipe nationale du Sénégal. Il est venu nous rendre visite dans la tanière de l'équipe nationale du Sénégal. Et on lui a posé, je me souviens encore, 40 questions. Et il a répondu à toutes les questions. Donc on avait fait tomber les barrières. Euh, C'était vraiment très convivial. Nonobstant la Covid-19, on a tenu bon. Et la fédération aussi a, a, travaillé avec... Je me souviens parce que nous, chaque match, nous avons fait test Covid. mais c'était Amadou Khan qui, qui appelait, qui m'appelait, qui me dit Ablaï, demande aux journalistes de venir faire des tests ici, euh, chez nous. Donc on n'était pas loin, donc on marchait, d'un test. Donc il y avait, pour moi, c'est après que je me suis rendu compte que euh, synergie d'action, on ne pouvait pas rater cette Coupe du Monde-là. Parce que c'était la première fois qu'il y avait cette synergie-là, que tout le monde, il n'y a pas eu d'écart, il n'y a euh, même souvent de faire de l'autocensure nous-mêmes pour que l'équipe euh, aille, aille, au fond, surtout cette blessure de Sadio Mané, la façon dont on l'a gérée. non, c'était fou. Euh, bon, voilà, il y avait tout. était là pour qu'on ne gagne pas, mais tout était là aussi pour qu'on gagne. sama relation ak Sadio Mané c'est des relations euh, de petit frère et grand frère daf ma jox cër wax dëgg yàlla c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour moi je n'ai jamais eu souvenance où il m'a croisé pas une seule fois muy football ba pare muy mu gagné muy mu perdre muy regroupement te ñëwul ba ci man daf ma accolade prési comment tu et tout donc euh, c'est quelqu'un euh, en tout cas yar nañ ko loolu laa mën a témoigner ci moom euh, il a eu une très bonne éducation il méritait d'être soutenu et wax dëgg yàlla c'est quelqu'un de bien donc on a eu ces relations là là c'était son septième trophée le trophée Jules François Bocandé il fallait qu'on aille jusqu'à Munich pour le lui remettre parce que même gagné sept trophées euh, il il a gagné deux fois le Ballon d'Or africain mais nous avons pensé quand même que lu jógee sur réewam te il nous a permis de venir jusqu'à chez lui man ak Mbaye ak euh, Bakary son son manager de me rencontrer ko il nous a reçu les honneurs Euh, donc yàlla na ko yàlla sàmm daal en tout cas euh, c'est notre Sadio c'est pas que le football hein, on voit la dimension ce qu'il fait aussi pour son pays c'est un exemple je crois qui doit être montré à la à la à la jeunesse voilà les relations que que nous avons quoi. voilà président lan mooy sa mot de la fin. ouf mot de la fin c'est te remercier d'abord aussi hein, parce que t'as pas parlé de toi je les gens parlent beaucoup de Abdoulaye Thiam de ce que j'ai fait. Mais je dois le dire aujourd'hui ici, si on a réussi aussi quelque chose, c'est grâce à, à, vous, parce que toi, tu fais partie des gens qui m'ont soutenu depuis le début. Et j'aime bien ta franchise. Euh, nous ne sommes pas d'accord sur tout. Tu m'as écrit une si longue lettre. <laughs> Quand tu n'étais pas d'accord avec moi. Mais nous avons toujours entretenu des relations fraternelles. C'est ça qui me qui donne, qui fait ma force moi aujourd'hui au sein de, au sein de l'ANPS. euh, jusqu'à l'AIPS, toutes ces relations que nous, que nous avons, pas seulement avec toi, Fat Kinesila, Soda, Sorna, tout, Koulim Djoum, toute la commission féminine, les, les hommes aussi, et ainsi de suite. Donc, euh, euh on dit que c'est moi parce que je suis président, mais si j'ai réussi, c'est aussi, c'est parce que j'avais une équipe derrière moi. Donc, euh, on était là pour servir, on continue de servir. À un moment donné, on passera le flambeau à d'autres et j'espère aussi que c'est toute aussi va continuer à servir notre pays à continuer le sport sénégalais. ñu jaajëfal ko mu nekkoon Abdoulaye Thiam di président association nationale de la presse sportive euh, de l'association nekk tamit président de l'association internationale de la presse sportive ñu amoon mbégte di ko dalal euh, amaat mbégte tamit yéen ñi nga xam ne yéen sa safoo 7TV ba di ñu seetaan seen émission souvenir souvenir di leen dig daje ci beneen numéro.